leeral balaa nag may commencer ci wolof euh, tey euh, mouvement sportif dafa am dëj bu rëy muy Sega Sakho ancien international qui a fait les les les beaux temps de l'équipe nationale de la Jeanne d'Arc et du Jaraaf nous a génn àddina tey ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana euh, c'est tout le monde du sport qui qui endeuillé ñuy ñuy associé à sa famille ak le monde sport yëpp euh, di di naqaru li am naqaru li itam li accident bi am ci région de Diourbel benn bus tàkk fa ba 16 personnes gaañu fa naqaru lu itam ñi nga xam ne dañoo de plus de 200 personnes ñaari téeméeri nit yu see yu ci géej gi ah euh, ci nga xam ne dañoo bëgg a génn gi réew mi ñu doon wax ni buñ àggee ci réew mi dara dootul amati Sénégal ngi continuer di di di di di dëkkuwante ak ay jéey yu mel noonu ñuy massawu famille yooyu ñuy massawu Sénégal ci yooyu am tey man maa décidé ñëw tey def point de presse te maa ko décidé suma bopp su ma doon déglu rek ñu bëri ci parti bi sumay xarit ak su may kilifa yu nekk ci biir parti bi point de presse bi duma ko def parce que nee nañu ma naa ba ñu xam li ci biir lan la may nag Sénégal léegi information ak communication dafa am importance mënoo bàyyi ay nit ñuy wax lu leen neex teg ko sa der teg ko deru régime bi te nga ne pat noppi Sénégal xamuñ ku waxul ku wax rek lañ xam te ñu ngi ciy wax lu bari ba ci tudd am na ay ministres yu bëggoon daw ñu bëggoon daw léegi moo tax ñu tere leen dem bitim réew man ñëpp xam nañu ku bëggoon daw man ci sama passeport ordinaire bi nga xam ne maa ngi ko def le 24 avril dem naa fi Thaïlande dem naa fi Maroc dem naa fi Gambie dem naa fi Abidjan ay kon kay amoon naa ay fekkee nii rek dama bëggoon laqatu u daw amoon naa moyen dem naa ba Thaïlande ku dem ba Thaïlande visa yaa ngi nii passeport yaa ngi nii tampon yaa ngi nii. aéroport bii laa jaar aéroport bii laa dellu si kon bi ma ñëwee ma bokk ci mission officielle équipe nationale du Sénégal comme ni ma demee woon Mauritanie biñ bindee tur Augustin Senghor sama tur lañ ci teg ñoom ministère de sports jot nañu liste bi avion bi ñu waroon dugg avion wu état Sénégal moo ko affrété équipe nationale du Sénégal ku bëgg ku bëgg daw dana jëm ci avion Sénégal ci ci délégation wu Sénégal am ci biir délégation bi cinq agents de sécurité yu nekk BIP ci BIP lañu ñu jógee du fédération moo leen di ñu nekk ci délégation bi ñun ñëpp ñu ànd stade bu ñu jógee stade ñu dem hôtel ba ba digg guddi deux heures du matin trois heures ñu ne dañ dem aéroport bi ñu àggee aéroport man ñi intendant ñu yore bagage yi wan ma ni jox nañ ma suma passeport jox nañ ma suma carte d'embarquement ma ñëw ba ci police ñu jël sumay empreinte bàyyi ma dem ah merci bon voyage bi ma demee bay traverse ci la ma benn policier ñëw discrètement nag ak correction nag wax dëgg yàlla na ma monsieur le ministre dañoo am na lu ñuy contrôler ci sa passeport ma jox ko dix minutes après mu benn naa ñëw lieutenant naa ah, waaw monsieur le ministre dama bëggoon laaj est-ce am nga ana ah, yor nga sa passeport diplomatique ma ne ko yoruma ko man depuis le bi ñu wàccee ci nguur gi laa denc suma passeport diplomatique amatul njëriñ mais c'est un document personnel je le rappelle C'est un document personnel. Il n'y a aucune obligation de restitution du passeport. man leen mais ku defar passeport ordinaire di ci waaye see kon loo may laajee suma passeport diplomatique mun ne waa loolu sax du loo am important mais dama la bëgg yëgal ni dafa am opposition pour nga génn réew mi ah man waa léegi waa d' accord comme état de droit la ñu nekk mën ngeen am ngeen mën ngeen ko wax mais ci fan ngeen ko sukkandiku te yow instruction bi may wax dañ ko war a jox kayit mm-hmm. soo ma joxee kayit ma xool ko mu ne ma non instruction la ma ko am ah, mais instruction dafa am kayit nag même bu ñu la jox instruction dañ leen a diw ak diw bu ñu mi te nag man ma ne ko moom leen naa man si sama bopp du rapport nag du rapport Cour des comptes du rapport IGF du rapport inspection générale d'État bi ñu ma jox passation de service bi ma def def nañu lépp signe lépp te ba tey inspection générale d'État defuma observation ci li nga xam ne def nañu ko ci passation observation yi ma envoyé tontu naa ci te des observations de forme kon man en ba ba tey gisuma fuñ ma convoqué fuñ ma fuñ ma wanee kayit mu ne ma monsieur le ministre daal noonu la demee après ne ma maa ngi ñëw boobu laa ko gëj gis ma ne nag man am naa responsabilité am naa poids ci fédération sénégalaise de football ci joueurs yi joueurs yu bëri ci sama kanam lañu ñu commencé màgg depuis sept ans ànd ak man ba tey su ma leen yëgalee loolu ci balaa ñu yéeg ci avion bi dana indi coow dana indi jeexa jaaxa te man le Sénégal est au-dessus de tout bi mu ma jotee ak encadrement bi ñu bëgg a xam ban position la ñuy am man leen bu ñu am benn position dem leen ngeen voyage si jàmm man bugguma man sama personne ma tax ñu perturber équipe nationale Senghor ne ma en tout cas xamal ni football bi ak bi sont solidaires avec toi man leen xam nga la ma bëgg mooy na Sénégal gagné te moo tax ma toog seetaan match ba mu jeex Sénégal gagné ma ci sant yàlla kontaan ci mais loolu moo am bi mu amee ma ne man su ma ci defee bruit à la veille du match mu am coow ma def ndànk mais bi ma gisee nag ñoom ñu ko def bi ñu gisee ni man utuma benn yoon di victimiser wu utuma benn yoon di lax-laxal ñu commencé di war ne ay information di wax ni wooy Ablaye Sow da doon jaw jàpp nañ ko aéroport ce n'est pas vrai loolu ku yaakaar ni man ci réew mii ku nga xam ni man su ma génn réew mi fu ma jëm xanaa njaboot gi ma fi yore moo ma ëppal importance lépp loo mën a am ci àddina li ma am ci relation ma nekk maire Kaffrine waa Kaffrine yaakaar ma dénk ma seen dëkk man danaa daw bàyyi dëkk ba et kuy daw moo kuy def boo defee dañ lay won lii nga def kon par conséquent loolu moo tax man ma jël suma responsabilité bopp ma damay oo journaliste yi toog ak ñoom wax leen sama version nii la demee lii laa ci am euh, naa nag euh, lu ko nit jàppee ñoom lu ñu jàpp mooy ci li ma dégg li ma gis mooy jëm a xoxotal jëm a bousculer jëm a ñuulal ay nit parce que ñu ngi jëm ci élection législative waaye man mii de tànk maa ngi desee bakkan tant maa ngi am dund tànk que jëluñ suma bakkan gii tant suma dund bi bàyyi nañ ko fii danaa xeex te liñ fi bëgg a teg ci réew mi lu dul dëgg danaa ko xeex te kenn mënu ci dara ah loolu loolu moo nekkoon sumay kàddu wax naa ko sànq vraiment am naa occasion yu bëri yu nga xam tukki naa fi ñëwaat à l'aéroport aw ma benn ku bëgg ku bëgg ku bëgg a laxatu mais du jaar ci équipe nationale du jaar doo yore benn walis bu nga xam ñaari yére ci nekk faut quand même qu'on soit sérieux et qu'on respecte les gens mais moi on peut me manquer de respect on peut essayer de m'humilier on peut essayer de toucher ma dignité mais ils ne toucheront jamais mon honneur ils ne toucheront jamais mon engagement ils ne toucheront jamais mon engagement au service du pays s'il faut mourir je vais mourir mais je resterai debout et droit dans le combat que je mène au service au service du Sénégal c'est ça le plus important moo tax ma ma ma kontaan ci ñu ngi ñëwee en masse malgré actualité yi bëri assemblée ak feneen ak feneen mais man dama jàppoon ni le fair il faut le taper quand ce que je rappelle, moi je reste un citoyen sénégalais, un fonctionnaire sénégalais, qui est à la disposition de son pays. Partout où le pays m'appellera, je répondrai sans résigner. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des limites à tout. On ne peut pas, on ne peut pas nous brimer de cette façon, on ne peut pas nous, nous, nous traîner de cette façon, comme si nous étions des malfrats après avoir servi loyalement et dignement ce pays, après avoir rendu à ce pays des services dans les, tous les domaines à la Fédération sénégalaise de football. Je suis aujourd'hui commandeur de l'Ordre national du Lion parce que nous avons été champions d'Afrique et dans, ce, cette Coupe d'Afrique, j'ai joué un rôle important. Aujourd'hui, on veut nous dire qu'on n'a rien fait. Quand j'ai quitté moi la direction du CUD, c'est des, des, milliers d'étudiants qui m'ont accompagné à ma sortie. Quand, notre, pouvoir est arrivé à son terme, c'est la tête haute que j'ai quitté le ministère de Donc vouloir aujourd'hui nous, nous diaboliser, simplement parce qu'on a un plan politique et un Premier ministre qui s'est transformé en juge, en procureur, en policier et en gendarme, on ne peut pas l'accepter. le parti, le, la coalition, les, les, la, les, la, société civile, ceux qui se battent pour les droits de l'homme, tous sont interpellés dans ce combat pour la défense de la République. Ce n'est pas un combat pour défendre Ablaïso ou bien pour défendre des individus. c'est un combat pour défendre la République, un combat pour défendre notre pays et la dignité de notre pays. J'aurais pu aujourd'hui saisir toutes les instances internationales dans lesquelles je suis. Je n'ai saisi aucune instance internationale. Parce que pour moi, le combat, il est ici et il ne faut pas ternir l'image de notre pays. Ceux qui en charge la gouverne de ce pays, ceux qui en charge la direction de ce pays, si eux n'en ont pas conscience, nous allons les rendre conscients de cela. C'est aussi simple que cela. Lola Bougon, content